Moutarde Chef Faïda, goûte et apprécie. moi, mon triangle de l'écran fromage ou l'écran buy T'es si te bàyyeekoo si mer bu neex ànd ak l'écran la Megel, la CCBM Industrie automobile, distributeur des marques Volkswagen, Aval, Credwell, Chery, Lovell et Truck. Un service à private de qualité avec un dépannage mobile 7 jours sur 7. Vexpool pour tous les jours et même les autres. By CCBM. technologie pour bees ngir le set arôme épicé resto Axo soja resto Moui, bégel du ñi Ce t-shirt c'est un petit garçon. Tout ce qu'il y a de plus normal. Et c'est un papa qui se dit Ça, c'est mon fils. agnovelas Novelas fait xeeñ neex. lan lay le marché digital qui vous simplifie la vie. Rendez-vous sur comtrip.sn. Réservez vos logements de luxe et de qualité en un temps record. Trouvez vos appartements ou villas avec jacuzzi, piscine et peut-être même une plage privée. Une femme, un mari remercie ses partenaires stylistes. Bella Collection, Mouchei, Jap Store. Takkan mebum cepat Diri menyu anda Wahai bumu say tubuhnya Lối đâu vậy ta nô Baru wai Puljai setaro Alla deva mata sorai Nit kune tangawara Vergegam kinga don Dagul panlano bay perder coragem, perder coragem. Mais atacando o rolo, perder coragem, por perder coragem. Mais atacando o rolo, fama, mãe. comment tu vas J'espère que tu vas bien. nice, hein? Alors tey dama mais beaucoup resto des trucs comme ça non non non tey dama beaucoup changer une Tangana la fais ma confiance Nous dem sama ataaya gi pour lan la yow lu la jara lu ko fi jara c'est quoi ton problème et eh wuy ma xoolal dama bokk ci famille bu baax bokk ci giir bu baax di responsable ci dëkk bi du ma nangu ñuy é di ma tiitre ay à la une ci journée yi di ma traité de gigolo eh, du ma ko nangu eh sa famille bu baax ak sa yax bu baax danga koy wan dëmm yi sama yoon nekku ci yow doo nit yow soo doon nit man mii ngay soutenir man soutenir soutenir xaraamatu njaayu lan yow ci ci wutum bës laa lay soutenir mais yow c'est quoi ça ak c'est quoi le but lu ko fi jar sa yoon nekku ci Fred man soo ma xoolee xam ne du ma ko ñuy conditionné soit da ngay mun toog toog munoo ko tu dégage de ma sama xam nga dégagé yow. ok léegi man boo ma fasee da nga may baara suuf te kenn du la ko wax. Hmm. ñaareel bi mooy yow li ya tax ñuy li ñu wax ci li ñu wax ci article bi yëpp doon dëgg dañ lay jiiñ dëmm yow ngay soccee yeelu liir. li ya tas sa say yow. Fred génnal sama kër génnal eh eh génnal sama kër génnal ci biti génnal. bro je um, bu un bi feeling dafa deep quoi Je expliquer quoi Je suis spécial ne ah, ah, I don't know man <laughs> président plaisir. Je de sérieux Qu'est-ce ak le maximum d'informations tu tu bu

comme que famille yi ñoom duñu mës a guerre coow lu dem fenn ya ko fi waxoon non hein? gis nga li fu mu toll tey gis nga fu mu toll Fred après à qui de tour dis-le moi. waaw léegi mën nga kay laaj <laughs> man bu leen ma dugal seen problème yoy de hey te du yéenay œuvre ces femmes là non Mais la ma sama chance. Qui? man depuis le début j'ai été très clair. Diène ba génn naa ci mom fu mu toll nii ki ci dess xam nañ kan la de xam nga fi la mo fi ses dañu war a fàtte suñu bopp te fàttaliku suñu xarit bi di Fred surtout ci moment yu difficile yi la ko soxlawee. ma ne eh sama bopp ma la gën a du bañ naa la. wala oh, yàlla sunu xarit la waaye sama yaay bu yëgee lii lan la may wax su xamee ne man je traîne avec des gigolos. gigolos mais si lan ngeen may xoolee mais dëgg la dinañ ma traité de gigolo yow mi baax takka sa cravate nga dem toog ci plateau télé radio, rajo yi soso soso yi defal meeting. non non non non non non. waaye yow même dama bëgg xam moom bu ñu ko défendrul kan la défendre kii bu ñu ko soutenirul mais kan la soutenir kan lu wax ma kan la ñu soutenir parce que c'est notre frère dañ ko war a courage hein. ànd ak moom ah. mais dëgg parce que kii fu mu ñun ñun ñii bu kenn pikiroo fenn ñun ñëpp a war a dem naan ci ay garab yu bëri. parce qu'on est une famille. da ngeen a baax rek kontaan na trop mais lii yëpp teguma leen ko yàlla xam na loolu man daa ko gérer. Euh, frère <clears throat> fii actuellement mënoo gérer lépp ay xarit bu ñuy ànd dañuy ànd ci dëggu des fois nag défaillance mënut ñàkk hmm? défaillance mënut ñàkk mais li am ba des mooy ku ci nekk am na fi problème yoo xam ne bëggoo mu siiw. donc le la war a nëbbal te soutenir la Boudé, si si si si si tu m'enlèves les verre du nez. il a marché sur ma langue hein. si tu as marché sur ma langue parce que l'ila n'a pas. c'était mes propos. merci merci beaucoup vraiment Content d'entendre. trop. c'est non quelle tristesse. allo Avant avant on était bien on était trop bien ndekete que tu es nga tu hmm? naa wat ci Tu ne Aji Tu damay dugg ci kër gi fois ñëw fi ba tu es sax parce que Tu am tu es tellement occupé que amoo sama jot. non Malcolm pourtant je une femme que dinaa la mais tu ne l'as pas fait tu ne l'as pas fait. Adi Fatou à quoi ça sert de se battre sur tout ça bu que ne duma ci sur sama bob. je veux juste que nous ànd di balader ci mbedd naturellement mais pas comme les familles Kardashian Faut ñu mënti taxaw ngay jël ay selfie avec tes fans n'est pas trop demandé c'est pas pour être méchant ou que nekk jalousie lii donc la sort Malcolm c'est pas ce que tu crois je te le promets parce que j'ai le sens des priorités suñu problème c'est parce que tu tardes à prendre une décision. je suis tardé une décision wala yaa mënul seetlu xalaat naa façon bu nekk pour te demander en mariage dela am seetlu daanaka bi may ñëw yëpp sa kër te mënoo ma seetlu c'était juste pour ça Malcolm. yow ak man ni picc ak pelle bàyyi ci xel yow sunu mbëggeel na li ñu boole du ay fo yow ak man ni picc ak pelle bàyyi ci xel yow sunu mbëggeel. it's real love. mbëggeel ak a neex a neex ci kaw li ngay yëg ma yek ko it's real. Fama. j'ai comme l'impression que nous dañ may je sais pas l'autre. chut que li ngay film dafa bari trop Ken mo lay top? yow pas comprendre li ma lay wax j'espère juste que duma ci am bon problème première dame dafa capable jigéen day am fulla am fayda man nak waxon na ne xam nañ loolu de sama waa ji lu mu wax def ko de. Ah, waaw. amoo dara looy ragal woo na la walla woowu la. gis naa deux appels inconnus yu may woo de mais décroché ma. mu ne yow est-ce nit nga yow xam nga li nga nar a ah yow yaakaar nga ni président dina la woo ci numéro muy affiché. su waaw nag plané nga nag. ah Fama man tamit wóoru moon ni moom la de en plus man bëgguma jël benn risque déjà yow yaa ngi am ay problème Fama man j'arrête tout. awa gis nga man man mii maa tax nga inquiété jaru ko man je suis forte awa gis nga liñ nekk di wax ni lijjantiwu ma ko sax xam lan laa bëgg sama objectif ma atteindre ko komba bi may mënee ma gagné ko su leen neexee nañu bind lu leen neex ci man. man lijjantiw ma leen nga lan lañ bëgg a def déstabiliser ma te mënuñu ko de façon sama combat dinaa ci dem ba jeex te dama koy gagné. dama bëgg ngeen jàpp ne guerre baa ngi door a tàmbali. ndax ñi ma gis na le pare guñu te mbaa xam ngeen ne jigéenu Sénégal yépp yéen dañu àndal. yéen da ngeen war man teg ñaari tànk. ñu que fekk yeen fanane ngeen na wax ci la. yow première dame lalal sala ñoo duñ ci ndax yow suñu nga ñun duñ la duñ la suñu suñu lu raw la dina ah ça va Fama nga def. comme ça yow lañ soxla en fait on va aller droit au but quoi Femme, dañu vous ngeen arrêter li ngeen di quoi franchement waaye seen cause bi c'est bien beau mais xam nga mais aussi soo xoolee revers de la médaille aussi c'est désastreux et préoccupant yow xam nga ne yow sa diggante yow ak frère ñun duñ ci dugg suñu yoon nekku si mais faut tuddee Dieyna nga tudd foofu Aji Fatou di nga foofu Malcom ak Doudou loolu mooy coow li te man fu mu toll nii bugguma kenn ku ma sonal je suis célèbre sama image laa bëggul kenn la yàq ko te xam nga temps yi médias yi dañ si dugg moo ngi nii yàq nañu deru Fred da nga xam léegi man ak Doudou lan lan la ñuy sës sosal. Samir may ma ma wax dama ne la su fekkoon conférence de presse bi da ci dégg sa tur nga doog ma mën a àkk si nit gis nga bës boo gisee sa tur ci média bi bum la bett ndax yow bi ma paree conférence yaa ma njëkk a message di jooyu nan da nga sonn ci monogamie bi. yow eh, kañ nga fi yónnee message te ñun yëguñu ko. yow nag yow moo jëm waxuma sax say wax yow yow Doudou pour yow da nga tëddee jay naa noonu ba neex la nga sànni ko delloo ay waajuram <laughs> ak yomb. booy Tafisa. waa. eh kii sa ressemble sa semble du yaa ko jox kër. waaw sa kër nga jël def ko hôtel duudu di fa iri ay xale yu jigéen pour yow xaw ma lool. Hmm. wuy ma wuy ma xam nga lan la ñun dañoo ñëwoon waxtaan ci njëkk ak teraanga xam nga comme mi ngi commencé ñaaw nii eh, wuy ma nañ dem. wuy ma yow bu la leeree ne naa ko wax ma ne sa jaam. dem ñu ah,

jàppal mo jàpp ñu ànd bëgg naa ñu làng bu ko cofee la lool dina ma gaañ takk ma buum ci baat tëri ma ànd waaye bu relative mata sorai nikune tangawar fekhe kham kinga don dagul panlano be bul de courage bol de courage mais ataqander khol bol de courage bol de courage mais ataqander khol fama mai